إن الحمد لله
انتهيت
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi sant sunu boroom subhaanahu wa taala noo ngi koy bàkk noo ngi koy kañ ci mboolem tur yu sell yi ak melokaan yu kaw yi nga xam ne sunu boroom moom rek moo ko jagoo nu ngi gërëm yàlla bu baax bi mu defalaatee tawfiq ba ñu dellu si waat ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam woowale góor ak woowale jigéen nga xam ni borom bi subhanahu wa taala ci boppam moo leen tàggat ñu nekk saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko Abdullah ibn Mas'ud doon waxee mbokk yi xam ngeen ni ñooñu di waxtaane seen dund ak waaru moo ci nekk ak fàttaliku moo ci nekk borom bi subhanahu wa taala man inna fi qasasihim la ibara ñooñu day toog di waxtaanee ak a fàttaliku seen dund ak waaru moo ci nekk ak defaru moo ci nekk waaye ak si bëriku moo ci nekk mbokk yi kenn ku ne ci ñun na teewlu ci biiram xelam mu xalaat aw góor ak aw jigéen boo xam ni yàlla daf leen a tàggatoon ak yonent ak yonenteen sallallahu alayhi wa sallam nga taxaw ay jéego dox ay xuróor ci gannaaw ñëw ci ab dëkk bu sumaraan ay nit bu sumaraan yu ñàkk lool waaye yàlla yëngu ci ñoom ab yonent yonent boobu ñu leen gëmloo ni képp ku texe képp ku ko toog moom suñu borom koo koy ci texe te loolooy dëgg képp ku ko may koo koy ci texe te loolooy dëgg ñu gëm loolu wallahi di jeexaatoo aljanna ci seen i jëf comme ni aji réer yi di jeexaatoo li mu réer la ci biir suuf aw góor ak aw jigéen yoo xam ne ñoom dañoo gëmoon ni àddina bii àddina bu gàtt la dafay jeex dañoo gëmoon ni dundu àddina bii dund la bu simple dund la boo xam ne ay at yu tuutee tuuti bu jigéen ne da nga nekkee gone mu wàññeeku bu ci génnee waxtu yi nga feebar mu gën a wàññee bu ci génnee waxtu yi nga doon nelaw mu gën a wàññee bu ci génnee waxtu yi nga amee jafe-jafe mu gën a wàññee wallahi boo xoolee la ca def ak topp lay doon ndax ak bu ñàkkee solo loolu nga xam ni pourcentage yi ma ciy def yëpp bu ko ci génnee tuutee koy def ndax loolu gën a jar doomu aadama di tànk dundam ci suñu borom bi la tustiru al xayaat dunia yéen a ngi gën a dund ak nit yi xanaa da ngeen a xam wala alaaxiratu xayru wa abqa alaaxira loo gën waaye yamul ci gën bokk na ci lim gënee mooy day def xayru moo gën dëgg la moo gën waaye bokk na ci li ko tax a gën mooy moom day def te àddina day jeex. fàttaliku li gën a neex la ci kaw suuf ana seen nguur ga saabu na teey na ñaakoon alal alal ja saabu na teey na ñi ëppoon doole doole de ñiis na jeex na waaye xool ñu ëppoon iman ana ñu xëy na wallahi ci yàlla nangul innakum la fi anhaaru jannaati yashamsuuna fiha borom baa ngi leen berndee ay aljanna jannaatin tajri min tahtiha al anhaar mbokk yi lii moo war a nekk bit bi gën a rëy al gaayatul quswa bu abdul ci yëpp ci kaw suuf dama am dañ ko fi bàyyi daal kaw yi dañ ko fi bàyyi alal ji dañ ko fi bàyyi jigéen ñi jëkkër yi dañ ko fi bàyyi doom yi dañ ko fi bàyyi waaye li am solo li gën a sukkoo mooy aw yiw dafa sulwaan ni képp ku def yiw muy góor wala jigéen wala nga si yàlla boo xayaatan tayyiba danaa ko jagal ak dundam ba moom mu yëg ni wut dund ko jag sax ko woon a jóg waaye wut yàlla fan a jaare ba dundam jag wala li jël lahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun suñu borom ne danaa leen fay ci liñ doon jëf ba ñoom ñu yëg ni li ma leen fay moo gën lañ doon jëf mooy bi ahsani ma kaanu yaamaluun kon mbokk yi góor yooyu jigéen yooyu nga xam ni aw commerce wu dox ay bagage yu teew alal yu bari ay segit compte banque wallahi loolu duxul woon amul xalaat ci seen xol illahi alladi la ilaha illa huwa amul xalaat ci seen xol firnde ba mooy kenn ko ci xool da ngay gis ni kii allah yaram liñ ko jaral boo ko xaajee fukki xaaj yaa ngi genn wàllu xaaj ba sa xaaj nañ jaral daf doon tànk sa kanam ngir allah yaram jafe daf doon suul alalam ngir allah yaram jafe waaye daf doon taxaw di jaamu yàlla ay tànkam di neew ngir allah yaram jafe kon du dugg dund bu gàtt la loolu saxaaba yi gëmoon moo tax inna fi qasdihim la ibra waxtaani dund saxaaba yi ak waaw ak defaru moo ci nekk bi xesbi tawfiq ilbaari suñu borom defal nañu tawfiq ba ñu dellu si waat ci ron keppaaru góor ñi ginnaaw bu ñu génnee ci ron keppaaru jigéen ñi ne keppaar bi di génn sëriñ bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ñu jeexalee du lay Aïcha radiallahu anha wa arjali saxaaba tey ñu ngi dellu si waat ci mbooloon góor ñi jàmbaar yi sax tëddiyam jël te kenn ku ñuy wax Talha ibnu Ubaydillah Talha ibnu Ubaydillah gis nañu Abu Bakar gis nañu Omar gis nañu Osman gis nañu Ali kon jàpp ngeen xulafaa rachidun jeex na kon góor gi ñu njëkk a jël ginnaaw xulafaa rachidun mooy Talha ibnu Ubaydillah Talha ibnu Ubaydillah wama adraakum man Talha ibn Ubaydillah xanaa day ci ñor si ñun ci ñor si ñun ci xelam di dàggee muy xalaat xanaa war naa la ban martaba la Talha am ba bu ñu jeexee bu la taw baa tudd lu mu ngi fekk ban day la Talha am ba ñu jël Abu Bakar ak Omar ak Osman ak Ali ñu ñeent ñu bëgg leen juróomeel fekk fa Talha wallahi yee yor xaw góor la boo xam ni shahada bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu shahada bu rëy la yéen yàlla bi saa sallam ni man axaba ila an yandura ila shahidin yamshi ala wajhi al ardi falyandur ila Talha ibn Ubaydillah allahu akbar innaha la shahadatun azimatun jiddu azim shahadatun jamilatun jiddu jamil yéen yàlla bi nee na képp ku bëgg xool waa joo xam ni dafa nar a tëj dugg àjjana te deewoo ñu ngi nii dox yéen yàlla mu ne xoolal xam xamal na leen allahu akbar mbokk yi lan ngeen di yëg ci seen xol ni loolu la saxaaba yi doon yëg ci ku yonent bi wax ñu ngi dugg àjjana lan ngeen di yëg ci ay góor yoo xam ni yonent bi da leen a wax ni yéen di ngeen dugg aljanna ñoo yéen góor la war a doon góor yu yaabu góor yu bari soxale góor yu tàggale ay jaamu yàlla parce que seen aljanna leer na ba noppi waaye mbokk yi xanaa da ngeen a fàtte ni aljanna wallahi yonent bi du ko teelal suune fu mu koy teelal dafay fekk jaamu yàlla dafa fëlewul sa xol ba tegale ko mu seneen fu mu koy teelal dafay fekk da ngay mokk bu mokk ci jaamu yàlla da ngay sunguf pour koy seedeel day fekk da ngay feebar ci jaamu yàlla ba ñàkk jaamu yàlla da lay feebar sax mooy waa ji nga xam ne yéen yàlla mu ni ku nam ma xool waa joo xam ne ñuy dox ci kaw suuf te bokk ci waa aljanna xoolal sax sax ibnu abaydillah sax mbokk yi góor la woon boo xam ne bu kéemaan moo tax borom téere bi mu ne marhaban marhaban bi man qaddama xayaatahu ibtidaan lilxabibi sal allahu alayhi wa sallam fi gazwati Uhud marhaban marhaban bilshahid alxay alladi yadau aqdamahu fi dunya wa huwa yalamu annahu min ahli ljanna allahu akbar mais tey day bi la tey ñoo ngi taxagal ñoo ngi dalal ah ñoo ngi derneel waajoo xam ne ak dundam yëpp daf koo sacrifié wu ngir na Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne saxaaba ya dañ doon faral def loolu bari mooy kenn ku ci nekk daf doon jaay bakkanam ngir bakkan Muhammad def si commencé soto Abu Bakr di bàyyi waxoon naa xam ngeen Abu Bakar gis ngeen ko keroog ba muy gàddaay ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day jéegi jéegam yàgg rek ñu bëgg ñëpp daw ba taxaw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dox jiit yonent bi tax ci ginnaaw ñu dox ak kii aw ba kat kawaat moom ak yonent bi dem ba taxaw ca gannaaw yonent bi jiitu lu dox ca gannaaw ñu dox ak yàgg rek ñu toppaatu ka dem ba lay doon ñu nañ lënd maa yow nañ ànd maa yow mu dem yàgg mu taxaatu ka dem ci ko bi càmmoñ ñu ko nañ lënd nañ dox maa yow xam ngeen ko aw ba kat def loolu nee na xelam daa dallu ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day géej day yàgg xel ni ko waaw benn waaye bu àgg woon ci kanam rek dal na xam presque ko jël mu ne ko xaaral ma dem ci kanam bu ñëwee yem ci moom nee na bu defee loolu ne jéeg bu ñu wax li ma dem wóor na man ginnaaw kenn yóbbu man su fekkee nit daal ñëw ci nag mu ne xaaral ma dem am na kon kooku la waa ji ñëwee nee na mu yegg dem daal xelam def wax ko loolu ci lay doon mu dem ba mu yàgg xelam wax ko loolu def sax ñu nga saxaaba yi xam ngeen jigéen jooju ma doon nekk nga xam ne keroog bu saxaaba yi jógee ca xare ba lan la doon wax dana jaay baax na mu ne ci teewu ma loolu yeneen bi laay laaj mu def sa doom bi góor baax na sa taaw yi teewu ma loolu sa borom kër mu ñett ñu ñaar ñàkk na jaay ñàkk borom këram ñàkk doom bi waaye bi ñu ne ala Muhammad ñu ne ko Muhammad mi ngi jàmm mu ne bala mu ko gëm da cee def bëtëm ba mu gisee Muhammad lu wax kullul masaa'il takunu ba'daka ya rasulallah lu ma am ci musiba bu dee yow doo ko rek musiba bi ñu oyof na toll sax lii la ko xamee loon dafa sacrifié woon dundal keroog waxat def loo xam ne jaaw la loo xam ne taarix du ko fàtte ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ a faat wala moom bañ koo rey ci xare bi moo tax mu ne maa xam ni shahid al xay waaye di nga xam dafa doon shahid yonent bi wax na ko waaye mi ngi dund alladi yadaau aqdamahu fi dunya wa huwa yaalamu annahu min ahli aljanna mi ngi dukkat comme ni ngay dukkatee di dox comme ni ngay doxee waaye dafay dem aljanna mbokk yi xam ngeen saxaaba yi bëri amoon nañu dëgg la al asaratu mubasharuna bil janna lañ ci gën a siiw waaye tekkiwul noonu kese la al asaratu mubasharuna bil janna ak jigéen ñi nga xam ne yan ci boo xam ne leen ko ndaw soosu doon amina bi jinne umu solay ak umu xiraan umu solay bi jinne xaar ak yeneen xadiya aisha ay jigéen yoo xam ne kenn ku ci nekk ay xadis yu wér yéen yàlla bi seedal na ko aljanna ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon kii day def noonu dafa nekk suuf si waaye mu dox ak tànkam ci kaw suuf wa huwa yaalamu annahu min ahli janna allahu akbar mbokk yi lan la seen xel def ci koo xam ne mi ngi julli ci jàkka ji mi ngi woor ak ñëpp waaye mu wóor na ko ni bu baaxoo dana dugg aljanna la hawla wala quwwata illa billah bu fekkoon ñun la ñuy def est ce que bu ñun amoon moment ak garage wallahi man de li ma yëg ci sama xol fi ma toll ci boo mooy su ma amoon gaaraan boo xam ni dinaa dugg aljanna yaakaar mooy nii may toll nii dinaa ko soxla nii waaye xool ñun dafa mel ni boo ci gaaraan ci aljanna keroog la gën a rakkaat ci ay jaamu yàlla dafa mel ni gaaraan ci gën lay gaaraan ci aljanna mooy lan laa wax yow doo dugg ngay def ay effort doo dugg mooy li ma firi li ma waxtaan seen xol yi dafa xolal woon jaamu yàlla ba nit mënu koo taxale jaam yàlla kon man xamal man shahida lahu nabi annahu min alqada mimman qada nahba min almuminin rijalun sadaqu ma ahadu llah alayh fa minhum man qada nahba wa minhum man yantabu suñu borom ni surtul ahzab góor yi dañ nit ñi am na ci ñoo xam ni ko la rëgin fasanteeg yàlla mat na sëpp ñenn ña dee ومنهم من انتظر وما بدلوا تبديلا ينفي سيدنا طلعت كل يوم لبوك dina ñëw ab xadis boo xam ni ab kaw kaw la ko laaj yonente bi ni ko Talxa ci góor ñooñu la mën a bokk wala ci góor ñooñu la bokk kon ñooñu daal ci waa ji Talxa ibn Ubaydillah al-Qurashi as-Sayyi Talxa ibn Ubaydillah al-Qurashi as-Sayyi Abu Muhammad ñi kenn fukk ñi nga xam ne yéen yàlla bi daf leen a gaar ci aljanna bokk ci juróom-ñett ñi nga xam ni njëkk nañoo dugg ci lislaam xam naa yéen a ngi yéemu ci Talha waaye man du ma yéemoo gum ci Talha ci Aboubacar laa yéemu ndax Talha Talha ci boppam ak poids bi mu am ci kaw balance Aboubacar la naan jot ci siyaabay Aboubacar la bokk allahu akbar dama ne nu ngi yéemu ci Talha man yéemoo ma ci Talha ndax Talha ibnu Ubaydillah ci siyaabay Aboubacar la bokk nga ne ma lu tax loolu ma ni ngontam Aboubacar ca la Talha bokk yàlla jaaw bakar ne yéen asalam lan mooy sama liggéey tuub naa ni si nga nekk bëgguma yaakaar ni sama liggéey yéen bi ni ko sama liggéey mooy sa liggéey muy woote aw bakar takki dàllam takk liggéeyam dugg biir madina d'accord nee naa yéen yaa d'accord allahu akbar ngomul aboubacar moom dama ni gën na dund junni at aboubacar gont na benn ngont indaale ay konkal yoo xam ni ba ñeent fukki at ginnaaw faatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ña ba def bu ñu amee problème ci lislam ñoom ñoo ko nekk Talha ibn Ubaydillah jala ko Usmaan ibn Affan ak ni muy yaakaar ci quoi am ba bar lay bokk Saad ibn Abi Waqqas Abdurahman ibn Awf comme que lii nga xam ni bokkoon nañ ci ak sitta ñi ñuy tuddee asxaabu suura xam ni problème bu amee ci lislam lislam la waxuma dëkk ba Makka de waxuma Madina de lislam war ngal fab ci àddina bi problème bu mën ci am dañuy woo ñooñi nga xam ne ñoom ñu tuddee ahlu suura wala boog ci langage bu jamono bi ñu tuddee ahlu xamd wala aqd mooy ñi nga xam ne bu ñu amee jafe-jafe ñoom la ñuy woo pour ñeenti ko kon damay Talha ibn Ubaydillah li muy baax baax baax baax baax ci ngontam Abu Bakar la bokk kon Talha ibn Ubaydillah balaa l'islam kooku nag maa ngi fàttali xiyaarukum fi ljahiliya xiyaarukum fi lislam ida faquhu moo tax mbokk yi judd ci askan wu baax way jur wu baax way jur yu julli way jur yu jaar fañ war a jaar ba takku say jur la wallaay jeexital bu rëy am na ko sa dund dëkk ci milieu boo xam ne milieu bu baax la day def jeexital ñi tànn lu yombal boo ñëwoon tey sunu biir da ngay gis dañuy gën a yarante dañuy gën a baaxante dañuy gën a rafetlu sa ay jikko wallahi settantal dañ ci def mooy boo ko toppee ci biir da ngay gis ni kenn ku ci nekk la la toppoon balaa ngaa xam kum na loola fekk sa yaay wax ba tey da ngay gis waa joo xam ne ku ñàkk yàlla fekk ñàkk yàlla du ma ko wax yàlla du tey sun naa tax mu tey ñun lii ñu am suñu door am ci yàlla da ngay gis waa joo xam ne ku dëgg la ku jub la nga defee sun naa ko tax a jub nekk déedéet loolu ko ay wëjuram yaa yowoon ndax yéen yàlla ne xiyaarukum fil jaahiliya xiyaarukum fi lislam ida faqu ki la gënoon da ngeen di ñàkk xam lislam ki la gënoon avant ngeen di xam sunna ki la gënoon balaa ngeen xam mbaax bu ngeen liggéey ci mbaax bu ngeen góorgóorloo ci diine mu jàng di jëfe nga jàng di jëfe mu raw ida faqu di sàpp ida faqu mooy bu fexee nag la ma amoon mu di ko jéem a roote ko lu maan alhamdu abayillah daanaka la doon am bakar ñoom moo ko dal koo xam ne yàlla laa def nga fit li nit ñi fit ci lislam ñëwul xam ngeen aw waxtu sa biir yàlla na dimbale na ko taw ci musul naan tàngal boo nee ko tax ndox doo naan tàngal mu ne man daal loo xam ne boo ko naanee day jàppale tam xel daal dëgg dëgg man fit naa lool ci boppam islam xaramadul tàngal kon xam dafa yoroon bakkan bu jeey bu baax فكان فكان يرى بالجاهلية فكان يرى الجاهلية التي يعيشها الناس من حوله فتشمئز نفسه ويتمزق قلبه حزنا وكمدا على تلك الحالة التي كان يتمناها غير أصحاب المروءة والنفوس النقية الصافية التي قدرت على النقاء أن تتغير وأن تتبدل تلك الجاهلية إلى حياة نظيفة طاهرة. تتطور شو يفهم يا لم تنزل أي مكان يسر نحن نتكلم جديد يدون بالكفر من ak nga wutal waaye kii xam kan boppam ci doon jëriñ yàlla ci boppam demal waa taw suuf lu gën di nit kon am na ñoo xam ne dafa mel ni dañoo kenn xëytu woon dañ doon xëytu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñoom dañ daan weer dañ daan weer di wax naan yëpp yu salte yi nit ñi def day ñun incha allah duñ ko def lu tax mooy yàlla mu baaxaloon seeni bakkan jëm ci dund boo xam ne ku teey la gu set la gu mucc la mu ay jël ilim bu maan tay lal bu ragal yàlla suñu di lal innahu imlaaqun min amaliqati lislam wa farisun min asjaa alfursan wa rajulun min ulaika alrijal alladina kana lahum atyab alata al atyab alata bokk na ci góor yi nga xam ni ay jàmbaar yi sax tëdd lañ doon bokk na ci warkat yi nga warkat yi nga xam ni xeex ak tawal tay jaasi ak défendam ci lislam ah dañ ne ñun lii sa bopp yi bokk na ci góor yi nga xam ni jeexit na lu am solo ñu am di jiite ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah bàyyam ci Ubaydillah dafa bokkoon ci askan bu baax woon ko li ma doon waxal ko dafa bokkoon ci askan bu baax yar leen ci am jom ak am fulla bañ loo leen ñàkk jom ak ñàkk fulla bokkoon ci ñi nga xam ni ñu amoon service de yaayam di Saada bint Abdi Abdillah nga xam ni wala maam ah ak Saada bint Abdillah nga xamante ni moom moo ko jur maamam ci ko jur moom it bokkoon ci ñi nga xam ne ci kilifa yi gën a mag ci dëkk la ca la bokkoon kon ran keppaar bu mel nii ku ko nàmp taloo laa tax ka lu mu gàtt gàtt gàtt di nga bokk dara lan waxoon ci sa Aïcha ci nàmpatal gi mu nàmpatal ci doon keppaaru baayam feccilee ko ci doon keppaaru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen jeexit liñ def ci moom. kon mbokk loolu dafay wane ne lu am solo ni am na préparation boo xam ne kuñ ko préparé kooku am na ndam waaye gañe na ci kaw suuf tey ku baax dana ko yomb incha allah noonu la yàlla def samxa nekk ci cedd ba comme ni ci nekk ba ko lislaam ci yóbbu ba ci la takkee soxna dootu ñuy wax xam na ko dem jax kan moo xam ci xam na ko dañ ci jaxsul dara xam na ko dañ ci jax ci xam dara tudd naa ko fi tuddaat ko fi tuddaat ko fi loolu moom leer na xam na tamit ci jax bi moom kan ci soxna yeneen bi ñoo xam leer baag day na bi ci jax da ngay fàttali ko tudd Aïcha subhanallah daa ngi gaaw a fàttali du loo ay te wax naa xam na ta bi ci jax xam na ta bi ci jax bokk na ci ñu juumoon ci xaalisatal jëkk bañ tal ko xam na ta bi ci jax moo xataa ni saabi ak gaa yi juumoon ci xaalisatal jëkk wax tey wax moom mii bokk na ci ñu dawoon ndax njuumte yooyu nga xamante ni daloon na leen te yàlla baal leen kon xam na ta bi ci jax mbokkum day na bi ci jax moo nekkoon soxna Talxat ibnu Ubaydillah mi ngi nekk biir dëkkam di Maroc waaye yàlla def ko mu xam dëkk bi loolu xam nga sax la woon lii da lay wan ni gars yi yaakaar nañu woon de nekkul woon ay góor yoo xam dañuy yaakaar su bi leen jox yéen yàlla bi nee na loxo bi féete kaw di joxe moo gënal yàlla amul boobu moo gënal yàlla loxo bi féete suuf di ñëw benn waaye ñëw nañ yéen sa salam diw day moom sëñ mu jàmbaay boo ko fekk ma nga ci jàkk day diw day nangam wax la wax ba yeggal yonent bi laaj waaw xam kon fu muy jëlee lu muy nekk ñu ne magam bi góor moo ko yore yonent bi ne kon mag bi gisuma ko waaye kon maa ko gën kon lislaam dafa bëgg nit ki di ñàkk di jëriñ dañu yaakaar ko ne Talha ci commerçant yi gën a mag la bokkoon waaye nag fett na fett ma mën a fett jub loxo fi moom la fett baax xam nga loolu tamit lu dul entraîné la bokk na ci sunna xeeti export yi xewoon démb lu mel ni lu mel ni ngawa warbar lu mel ni cawal day jaar di seet lu mel ni fii ni yéen xarit sax ñëw na yéen bi yii nañ ko gaar ndax daa bokk ci xewoon moo tax borom xam-xam di wax bu ñu demee ba yeneen remplacé ko jamono yoo xam ne yooyu gisuñ te lu xaar gis nga gisante lu xaar su boobaa da ngay jaar biir dëkk ngir bañ yaram yàqu xam ngeen saxaaba yi am na ci ñoo xam ne seen jugub loxo subhaana man ci la am soo dee xool ku mel ni Suhayba ak Ruumi ah dañ ko doon tuddee ak raami kert kert Suhayba dana yor fukki xeet ak juróom mu taxaw ni côté bii laay seet dal ko lool te nim la waxee ni kert yëpp dina dal côté bi noonu la ko waxee noonu lay amee moom daf ne daal moom xanaa moom xeet moom dafa dafa loxo bi dañ koo naataat pour xeet ah yéen di ngeen gis xissa keroog bi ko yéen ay nabee ba muy gàddaay gis ngeen la ngeen waxoon lu mu wax dana yéen ñii fukki nit ngeen fi sama fettukaay bi fukki fett bi ci wax leen li ngeen soxla ñu jàkkaarloo bu leen li mën a faj ñu faj su dee xeet ngeen bëgg nag dànn leen xaw na lu may weeral ci ne sama fett ci benn bu ci nekk dana dem dal ci biir kenn ci yéen kooku ñu ne wax la ñuy wax kon dañoo jàngoon xel xam anoon la mel waaye mu nekkoon koo xam ni ku ku yàlla defaloon baraka la ci ko xel daanaka mag Madina Shaam Yemen dëkk yi ñu doon dem di commerce daanaka yëpp xam na ndax commerçant bu mag la woon waaye noonu daal ak woon di rek waaye borom bi subhanahu wa defal ko tawfiq borom bi defal ko tawfiq bakkanam ñu ngi gëstu yiw bakkanam mi ngi gëstu baax noonu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ nag ñu woote lislaam bi ñu yëgee Muhammad Abubakar daal di koy gëm soxla ko commencé di woote Talha daal di dégg woote Abubakar ba am na ci ulama siyar lu mel ni Ibn Hisham al imam Ibn Hisham boo delloo ci siyar dafay nekk li te loolu Xaafis Ibn Hajar mi ngi koy weddi al isaaba fi tamyiz sahaba mu ni bi nga xamante ni dem na benn marché dafa dajeeg benn labbe xam nga labbe yi jamono bi ñooñu ñu gënoon a jàng labbe bi di laaj kan moo jóge dëkk bu ñuy wax Màkka Talha ne ko man fa laa jóge nee na bi mu ko laajee ni ko est ce que amul ku fay woote woo yeneen mu ne ko am na loolu intéressé mu ndax man commerce lay di ci mu ne ko am na ku ñuy wax Mouhamad doomi Abdullah de moom mi ngi woote wax ak yeneen gëm leen ko ci ngeen xam ne yeneen seen bi dëgg la yàlla moo ko yónni Talha bi mu dikkee nag par yàlla séddee mu nekk ngoon am Abu Bakar Abu Bakar di woote daje fal subhanallah Abu Bakar ku gis leen ku muusoon la di gëmal laa wax léeg-léeg mooy laa wax am na mbooloo yoo xam ne jëlul son da ngay jël bopp yi gis nga boo liggéey rek gën a nekk kilifa ku ëpp alal wala bu doon jigéen ñi ne ci kam jigéen ñi gën a tànk boo ko laa wax wala ñu ci def loolu du ñëwatul ngoon Abu Bakar stratégie boobu la utiliser xam ngeen Abdourahmane daaw milliardaire xam nga kuy daaw tàmbale ci milliardaire mën ngaa taxaw de Aboubacar milliardaire boo xam ne dem na ba nee damay jël jël jël aw xeer ci sama biir kër ma yëkkati xeer yi boo nekk lu tax nga yëkkati mu ne est-ce que dañ wut xaalis fàtte ko ndax bari ah boo xam ne jékki da nga jàng gis apparat bi nga yëkkati loolu yëkkati mu ne damay ragal jékki ci xaalis fàtte ko ndax bari kooku bokk na ci lu mën Aboubacar waaye xam kadaalika commerçant yi mën xam nga tax ñu yomb a woo mooy abu bakar ni sut yi ci commerçant yi ma bi la ko xam Talha ne ne ma toogee ma xalaat ma ne abu bakar ak ku ko dàq commerce ak ku gën a muus ak ku gën a xam mone ak ni muy def ba commerce am di baax te pertu abu bakar ku mu toog di yàlla nga leen ca gannaaw laa sa kër kooku daal xaaral toog si ginnaaw loolu mooy muus mooy mbir bu dikkee xool gis xam ni ñii kat ñu xel nañ ñu yor la topp kat dama ne bu amul ay béréb yu leer xel lu ñooñu rek war na laa jox firnde pour nga gën a mën a gëstu bopp Talha nee na loolu jël daal di wuy si mu xam ne Abubakar huwa taajiru siddiq as-saduq alladi la yumkinu an yajtamia maa xabibi sallallahu alayhi wa sallam ala dalalatin abadan mu ne mënu maa gëm ni Abubakar ni mu wuute dana fekk waa ji tax tudd Muhammad di ko topp ci sànte déet loolu rek Talha nag daal di tuub ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax baati seede yi yonente bi kontaan lool sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbokk yi gis nga gis nga tey boo déggee si nit tuub na dara dafa lay def waaye saxaaba yi allahu akbar da ngay gis ku meroon ku meroon sax déggee di diw tuub na rek sa mer naa di jeex da ngay gis koo xam dafa kat ci commerce dafa ñàkk waaye yëg ci diw tuub na rek allahu akbar loolu jëral ko ak seenu xol lu tax ndax ñoom dañ doon gëm loolu yokkute islam dañ doon kontaan dañ doon yaamal jiw bi su fekkee am na ku ñuy dugg ci islam Talha noonu la def ànd ak nag li muy bari bari alal mos na ci mbugal ni waa Makka doon mbugal ñi nga xam ne ñoo doon ñàkk moo tax mbokk yi ñun war nañu sant yàlla baax subhanahu wa taala ma al asaf tey xamuñu loolu dañuy soxla di góorgóorlu ci sunna bu ko neexee tuddee nii bu ko neex lay dox su ko neexee naka la dem ci mbedd wax waaye wallahi Talha ibn Ubaydillah bokk na ci ñaari tujjaar li mu tuubee dugg ci lislaam mos na ci natt yi gars yi taw nañ ko ay taw yu méttee méttee méttee lu tax ay Abu Jahl ay Abu Lahab ay Umayya ibn Xalaf gars yooyu nga xam ne dañoo war ay xol ba seen xol yi gën a dëgër xeeri raay ba pare ñu ne laa bëgg a dëgg waaye li ko may tànk mooy moom mbugalal moom jëf sa yàgg mbugalal jëf sa yàgg ndax yàggul tuuti rek yàggul tuuti rek yàlla daal di yoonal yéen safara mu gàddaay dem Madina mooy mu daal di soxla dem Madina fekk yéen ci sallallahu alayhi wasallam waaye xool ndax gàddaay lay jot muy sóoraale soo mën a ne kon fan imaam bi maa ko bëgg a def du ma ñàkk sama client yi li ma tàmbali woon lay waxaat wallahi mbokk yi saxaar yi am ngërëmal yàlla ci boppam boo leen gën a lu ma est ce que ñu ngi yëg loolu jël fuqara alladina uxriju min diyaari benn wa amwaali ñaar yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana ibtigaa al fadl wa ridwan moo leen gën a lu ma ci am suñu borom moo tax ne ulaika hum sadiqun ñoo leen dëgg ndax mbokk yi ku mën a ñàkk sa alal waaw alhamdulillah am na ñoo xamante ni góor góor wala dañuy gis koo xam ne moo tax nag li wax ni bu la baax tee yëgal ni yow la ci waaye am nañu jëlu da ngay gis koo xam ne jamono yu baax ñu may fil ab jigéen boo xam ne moom si ma ko wax ne dem na bay fayeeku huit cent mille par weer ñu jox ko xol su ma juumul ci ñett yi su nekkul directeur société jege na waaye bi mu wóor ñu di ko fitnaal di ko indil ay jafe-jafe wallahi dafa bàyyi loolu lépp yàlla ngir sunna subhanallah te yeneen junne juróom-benn koy fay te nekkoo góor ngay jigéen ak jigéen ñi ñu tegle ci jëndum or ak jëndum jisi ak dëkk fraxe ak bëgg lu baax muuraayam jaram bu mën a ñëwi nag ngir sobi ak xatam bu la mbaa fee yow la def waaye am na ñoo xamante ni saxaaba yooyu seen imaam tigi même bu askanoo jokkuwul kon Talha ibn Ubaydillah loolu la bàyyee commerce bàyyi lépp bokk leen Madina ndax ñoom àjjana lañ doon jeexaa waaye jeexaal bi doon àddina shahid yamshi ala al ard ku nar a am shahada dee ci yoon yàlla kuy dox ci kaw suuf buñ ci bël ma dugg wax ko ndaw am na solo kon ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni yow di leen aljanna laa tax loolu ma dugg rëy waaye loo duggee aljanna ay musiba yi dal sa kaw da ngay sax dañ lay rey xool Ali ibn Abi Talib yéen si yàlla ne dafa toog ba mu yàgg mu ne xam ngeen kan moo gën a yéer ci nit ñi njëkk ñu ni ko déedéet mu ñu kara yoon jëlee ma saali loolu di leen leen si alquran kii di baata asqa ci gën a yéer yéen bi ne est ce que xam ngeen ci gën a yéer ci ñu mujj ñi ñu ne ko déedéet mu ne Ali ki la nar a caw fii ba tàqale sa ngaam yeeg sa baat bi moo gën a bon ci ñu ji subhanallah bu doon jël da ngay xaar waaw doo doon jaar ci ni mu metti même loo ko jëlee wallahi dama la tere ndaram ki nga xalaat ñettal yow na la am xanaa yow fi ni ko yow da ngay am soxla da lay faat Asman yéen fi ni ko ah yow la digga dugg àddina waaye ala xalwaatu suñu musiba yi ñëpp téeméer téeméer téeméer téeméer téeméer téeméer ba jéggi dayoo mooy dal saxal ba doo ko faal problème ñu ne dañuy def di ko génn di ko deneex xam nga ne jaral la ko bëgg nga ko yaa ngi koy yóbbu waaye nan la yore nan nga ñëkkee loolu ngay xalaat ñoom xaare woon loolu la wax rek ba waxoon rek takarrarat al asbab wal mawt wahid takarrarat al asbab wal mawt wahid mu ne dee ngi genn la sol jaar bi nga dee ba mag nga dee daal ci état dee moom dee dee la man lam yamut bi saydi maata bi gayrihi taaddadat al asbab wal mawt waahidu ku deewul ci taw taw jaati dee ci beneen façon yeeg secteur yeeg wuute waaye dee gi moom benn la taw taw jaati ba lu mu métti métti métti métti métti kooku ba dee ba nuur ko ci biir àdduna ak nuur ndax dana ko yëgati ah wallaahi du ko yëgati du ko yëgati dal daf ñoom jamono ba métti doy nekk du ko yëg al imam ibn ibn jawdi leen tamit ci sifatu safwa kenn ci magi salaf yi ab jigéen ab jigéen jigéen ji mën a jaam yàlla te ma soxla ci suufam mu ànd ak ay morom di dox am yàlla benn xeer ñu ngi samp suul bi suuf si am aw tax mu ñëw rek xottatalu ci xeer yi baaraam bu ndaw baaraam bu mag baaraam bi gën a mag ci tànk bu ko mu jonkan di raay baaraam bi di reetaan alxaafis bi ñu jël bi mooy ci loolu muy nit ñi àndoo dañuy yëngu baaraam bu sukkati ko ak yi ngi ne ci biir bi ñu ko laajee lan lay ree mu ne labda li muy yëg ci amul tiyaaba mu ne boo ko fàttalewoo ñeenti woo ko nag سبحان الملك الاعلى هكذا كان القول maanaam nit dafa toog ci degré iman ak jaamu yàlla koo xam ne lii ñu tuddee ay xeeti nit al nga di ko tiit naa dem ca xare ñu taw man fii ci ci man sama wala bi yéegu sama nangam nangam man su ma demee ko sama sama yéegu commencé joxe ak ngaam inna buyutuna awra wa ma hiya bi awra suñu borom ne waaye bi awra de in yuriduna illa firara dañoo bëgg a dal gis nga waaye ñi am ngëm yàlla wala dañuy yàkkam ci dañu ñëw ci ñu ko yàlla nga xare gëj naa am lan la yàlla gën a dugg waxal yësalunaka maada yunfiquun ne yàlla waxal yàlla laajal na yàlla ne ko lu gën a bëgg tey ñu defal ko xam nga ngëm yàlla bu yeggee ci nit ba mënut la fii bu toog ci xaar ñu jox ko waaye xaw mu ñox la dem ngir na laaj nañ ko jox parce que ngëm yàlla ci boppam lu ne mën na ko def loolu Talhat ibn Ubaydillah shahid la koy dox ci kaw suuf yéen yàlla dafa xabaar ne ko ne bopp moom dana am salaat hadisu abi hurayra bii nag bala ma kaa nekk dama lay wax ni léeg-léeg nit ñi dana am jaaxle ndax tudd naa ko def dund Abubakar te daal ci dund Omar tudd ko ci dund Osman tudd ko ci dund Ali te maa ngi koy tuddaat tey hadis bi benn la waaye riwaayaat yee mu ci bàyyi xel loolu da ngay gis koo xam ne nee na yéen a dafa yéeg ci kaw montagne ko montagne ko xëcc bañ a bañ a bañ a di yëngal léegi gëstu ko tànkam ñu ko yee doo yem ab yonent a nekk sa kaw ak xaritam ak kenn ku nar a am sahaaba muy Abu Bakar muy Omar am na beneen bi waaye boobu benn la dana ko yee yamal ab yonent a nekk sa kaw ak xaritam ak ñaar ñu nar a am sahaaba boobu Osmaan Kala am na beneen bi waaye nga ne ko ñi ne ci sa kaw ab yonent lay doon mbaa siddiq wala ñu nar a siddiq ndeket Talxa ca la bokkoon kon xadis yi dafa ñëw ci ay riwaayaat yu bëri riwaaya bii nag abi Hurayra mu ne uskun Hira montagne Hira la yéegoon mu ko yamal fa ma alayka illa nabi aw siddiq aw shahid ñett ñett ñii kenn ñett ñii moo ne ci sa kaw ab yonent kuy shahid ak siddiq muy Abu Bakar nekk keroog Abubakar nga fa Omar nga fa Ousmane nga fa Aliya nga fa Talha nga fa hatta Saad ibn Abi Waqqas fa ca la bokkoon te xadis bi al imam Muslim mi ngi koy nettali ci kitaabu fadail sahaba kon Talha yéen bi xaaloon na ne ko mun day am shahada waaye mbokk yi Talha ci boppam li ko yëg di daara ne da ngaa am da ngay am shahada léegi dafa mel ni ku taxale ko sabab bi jeexaat ci kaw suuf dee allahu akbar da doon jeexaat dee gis nga ci ci xaalisam réer ci suuf si muy wal di ko jeexaat Talha da doon jeexaatu dee ci kaw suuf man la yabxatu an shahada fi mataliha fu yaakaar ni bu ko demee dee jaram day sawar pour dem France moo tax masaahid yëpp borom xawata dañu teewe nañ comme des waxtu waxtu daa fekkoon mu dem ci benn commerce xeex bi am a xatar xatar la teewul dafa demoon ci commerce am badar am ci ginnaaw moo tax fekkeewu ko kon yii la amee shahada si shahada yaakaar naa lu ngeen gaaw gaaw fàtte wala duñ ko fàtte ndax maaraka su fee ci li ma leen jël sànq wala su ma leen jël dal ci yaakaar ku dund Ali Abi Talib te la xaatoo moom Talha ibn Ubaydillah kon Talha ibn Ubaydillah mi ngi noonu ñu xool benn la ci ay mawaat yi am ngir nga xam saxaaba yi ñu doon ay géer ci yow jàpp jaxas xoxas jàpp jaxas xoxas ban xam ne ñoo may daal di ci ay yàlla loo xam ni mën naa ni garab yu kawe yi mu am wala ndombay daal yi mu takk ban xam ni ko takkee garab gox wala bokk na ci bis yi ko takk mooy bokk yi xam ngeen saxaabatul kiraam ridwanullah alayhim bu yàlla ak ko yeneen mën a woote ñoom dañuy am ak tawate ngir la annahum yabxaquuna an shahada comparé nit ñooñu ak ñun waxuma la ci dara yaa ngi taw taw taw rek taw rek bu ko defee mu xool rek ah yow sama ne yéen ñeent ko génn naa leen jàpp taw taw rek laa waxuma bande waxuma ban waxuma ngelaw yi ay ñi daanee sa xam taw laa wàcc atalante rek yaa ngi doon jàpp du ci daa ay yeneen ak dina nga bëri jàpp yi du lu sëriñ sa jàpp yi jëfam wallahi bu nga xamee jëfal ngeen bu la gaañee subhanallah saa may da ngay loo xam day toog yëkkati boobu yëkkati boobu wan ay doom ak noob noob dem na fu garaaw boo xam ne boo ko tooy suur la lool mu koy baax ko xam nga lan mu naan ay doom lii gis ngeen garab la dal la ma dalal parce que da koy baax ko yàlla dina la gaañ gaañ gaañ koy baax ko te mu ne yàlla wax na yàlla ki nga gaañ gaañ bii maa ngi ko amee ci sa yoon wax aw ba sa siddiq garab ba muy yebal Usaama di doxal ay tànkam Usaama li mu yéegee ba ko mukk yonent bi nee na yàlla du sàqal sawar ay tànk yoo xam ne këndal na ko xam ci yoonu yàlla waaw parce que nag boo amee gaañu gaañu noos noos dina lii maa ngi ko jëlee woon keneen wax waxoon naa ne bu mu amaara am na gaañu gaañu ci ndox bi faj na ko ak lu mu xam jaamante na ko mën ko yëg te ñu ko ko jëlee woon ca ji nga wax alhamdulilah yéen da ko yow mu ñëw ñu ko ah xanaa ñu yéen ko xam de waaye amal na yow mii yàlla dara la ko dara la ko xam ba tax teew la ci xam ba nga xam ñu ngi dégg la ay sahaaba fekk déedéet ndax faa naa def ay galal loolu la yéen di dund sallallahu alayhi wa sallam kon loolu di lay di yàlla ko suñu borom xamal la ko xel nga xam ne dañ leen soxla xam ngeen ne ci gàttal rek moom jàll xam ngeen ko xam xeex bi ci li ñuy mane woon ci commencement yéen si yëkkati ay soldaar ci njiit ak benn waa bi jox Abdullah ibn Jubayr montagne Uhud moo ci fépp yéen mi ngi leen taxaw leen ci bu ngeen seenu lu dikk yi ñëw ci gàtt ci asamaan di ñu lekk seen yónni xanaa ñu ñaar yéen ñi ci suuf bu ngeen seenu ay picc ñëw di ñu lekk seen yónni ko ci ñun xanaa loolu leer na waaye nag yenn gars yi mane ci dëkk bi fekk xaalis boobu turóobu ndeysaan bi ñu commencé di séddoo jaab yeeg bagage yeeg fati kursi yi gars yi indaale benn waay jékki-jékki yuuxu waaye waay si leen waaye bu ngeen ko defee lépp gars yi leen séddoo affaire yi gars yi commencé balaas ko di wàcc montagne ah Abdullah ibn Jubayr ñu dee yi dégg leen dénkaane yéen si xanaa yéen si newoon ay picc bu ñëwoon ñoom di leen waxal di tànn di leen wax kon yaa ngi leen di xalifuna an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim dama wax ne bu ñu doon jàngat tey yéen fa waaye sa doy du ci duñ xeeb ak wax dana ca bokk yéen ñi bu la waxee defal gumba tëbal luul defal sama am nga xam rek saxaaba yi wàcc ndey sànni juróom-ñaari yi juróom-ñaari yi dañoo doon xaar ñu ak galam bi xaalis tamit occasion boobu nga xam ne comme jala or xaalis def tamit tuur yéeg ci kaw montagne bi subhanallah rey yi nekkoon ci kaw rey bu ñaaw woo xam ne borom kenn bi moo tax dama wax mbokk bi gis nga taarix histoire siira wallahi boo koy jël da nga da nga dem ba koy jël ndax doo xay léeg-léeg da ngay wax yenn rey yi nit tam yenn rey rey yoo xam ne moom la ñu rey ay subhanallah bi laa da nga jàpp lii ku am xam du ko def morom mu am xam waaye dañ ko doon muñ lu tax daanu yëg na bu na ñoom àggal na ñu bi loolu amee nag ah yéen na nag wër ci quoi garab wallahi ay saxaaba saxaaba yu bëri dañoo xaw garab garab wax saxaaba yu bëri bëri bëri ay jàmbaar yoo xam ma ne garab dañoo daw Talha bokk na ci dawul woon Sàlla bi wax naa bokk na ci dawul woon waxoon naa la ci di dégg sax rek moo am ci saxaaba yi loo xam ne yonent yi saxaaba yee ko ko daan defal yonent bi defal ko sax mooy lan saxaaba yi dañu gërgóor yonent bi ba dañ naa ko fa day naa ko bi abaarina wa ummahatina ñëppee nañ ne suñuy baay ak suñuy yaay maanaam bu ñàkkoon suñuy baay ak suñuy yaay jaral na ma ko xam nga loolu wax dëgg loolu yéen ci wax na ko taas saa taxaw di jël di yokk ko yéen a ko sànni ba day ko bi ari wa ummi ñëppee naa la sama baay sama yaay affaire bi bii rëbboo nañ ci ne nii kenn la ko yéen ci ma tawax muy taas allahu akbar saxaaba yi ñi desoon ak yonent bi jékki-jékkam yàgg dégg ab baat yéen leen halummu wa indi halummu wa indi kaay leen fii ana ibnu abdillah man may doomu abdullah allahu akbar ndax kii bokk na koo xamante ni day yar biiram di naan yaram kaw ak galaas keneen gars yi dem leen man dinaa ñëw déedéet ndax yi day toog ci client boo xamante ni daanaka su ko jógee daa aajoo boppam déedéet waaye daf doon sóobu ci biir kër yi ñëpp Ali Nabi Malik nee na saa bu ma daana jàpp xoolal jàmmaat Ali mu saa bu ma daana jàpp ci xale yi ginnaaw yonent bi lañ doon laaxal sallallahu alayhi wa alihi kii ndax bokk na ñi nga xam ne ñoom dem leen ca tool lay wax te moom du dem dem leen liggéey te moom du liggéey ah la la wax par doon wax rek jàpp say loxo doo liggéey dara doo naan ko doo yoroon jeegu ndox loolu yonent bi du ko rek sallallahu alayhi wa sallam waaye xool Talxatu bnu Ubaydillah jaasi la seen juy ñëw ci yan bi wallahu akbar alxa baare ko loxo bu ndey joor ak loxo bu du tël tël nekk noonu la ko yonte bi dul sallallahu alayhi kon soo déggee ñu naan salla loxo bu dafa tëttul ca ci baaraam yi ndax da doon defaan ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi la gën temps am na benn riwaay boo xam ne alxaafis ibni xajar ñu koy di jar ifaam saa di nee na yaram xaw ma ci sama yaram ci jaw taw jaar dal la mu ne ba sama yaawar ci jaw taw jaar dal la allahu akbar ni xaw ma ci sama yaram ab xarab bu ma mën a wax ni fii taw taw jaar dal ma kaw am na benn taw taw bu ci gën a métti doom bu jigéen moo koy nettali ne ci karnoo bi la daal taw taw jaar ba léegi muy muy muy sax di continuer di muñ di défendre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ñu koy taw jaar bi xalaxa nit léeg-léeg loxo bi di sëppit xalaxa nit comme ni ñuy def nit sax wala nga ne ay ja dafa naa ni noonu la ñuy def ci araam ñoom ñu ne xat allahu akbar yéen dañu ko tax a yàqu nga duñ neex yi boo waroon xat malaaka yi danañ la yéen ba la rahmaan beneen subhanallah ñu ne ko tax a yàqu nga boo waroon xat malaaka yi danañ la yéen ba ci asamaan beneen am na beneen riwaaya bu wér dana ko gis boo waroon xata xëy na sa biir dañ koy tabax ca àjjana nga gis ko ci jéewoo boobu yi garab la ko am comme ça moo tax loolu benn ci isaara ni ko teyal la yàlla garab ko benn ko yeneen riwaaye xam ngeen garab boo xam fekk na yore bi commencé naa jëm ak tuuti yeneen riwaaye bi dafa fekk day taal yore bi bëgg a jub jub jafe ko tànk yi xaw a bañ fekk talxa tànk bi dafa amoon tuuti laaj di laaj buy dox day toog waaye gis na yore bi bëgg naa jóg mënta jóg mu boor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéegal moom kaw montagne bi saxaaba yi ne leen yàlla lañ gis talxa mu dox dox bu kare te talxa mënut a war a dox dox bu kare waaye lan moo tax mu jéem a dox dox bu kare nee na bëggul yonent bi booram ba pare ñu wegg al imam ibn Hajar nee na keroog la tànk ba wér ba mu gisee oxo soo ko mu tànk ndax boor bi mu boor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jéem a jubal ci jubal ci bu ko ngir bañ mboolum yonent bi wegg ndax ba yonent bi gaañ nañ ci sunu bi ah jam nañ ko ay jam jam damm nañ am bëjëm booba sonn la lool waaye nee na boos di jéem a jubal ci jubal ci bëlu yàlla na ko jubal ci ko kon mbokk yi lii wallahi ñu lay wax noonu kenn gis nañ xéewal yàlla séddale li benn woon ndax xéewal yàlla séddale taw bàyyi ko ci asamaan kenn ku nekk la nga taxal ngay am gis nga bu ñuy jaxam ay bari deux cent mille yow nga ñëw taxal ci am attaay yàlla sotti la taal attaay waaye boo gëmee ni juróomi bëri yu des sax lay julli wallahi yàlla du yor ndax yàlla maa ànd ak yéen fas bu maa ànd allah bu baax kon lii lenn la ci ay taxaw ci garab wax doonte am na yeneen ko yoo soxla yu ko def xëy na bi ñu danañ continuer boobu wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi